wala li ñu taxoon jóg tey mooy ñun lu tax ñu choisir li ba paré teg ko ci yoonu Benno Bokk yaakar bu ko si ànd ak Maodo malik may moy ñun dañu tambali woon ci lolu programme bobu président Macky Sall tuddee woon PSE parce que daf ñu ci fekk PSE bobu nak si lañ tàmbali depuis 6 ans di kurti kurti aujourd'hui ñi nga xamante ne la ñu mobiliser tay ñi ngeen fi gis ñëpp ku si nekk présidente nga ak secrétaire général bu avec parce que les moyens sont très limités pour que avec bi yëpp daal di ñëw déplacé wu. donc présidente yëpp tey ñoom ñoo dajaloo li ma lu ma wax ñoom ñoo ko wax li ma def ñoom ñoo ko def sànq yéen a ko amandé léegi ji mun na bañ a sori Maodo Malick Mbaye ko sollicité benn yoon mu fay ñu fukk ak benn fukk ak benn boobu laa bëgg lim commencé ko si benn bi dañ ko woo mu ne maay ñëw daal di daw ñëw suñu ay bët xonk mun ne maa koy weexal daal di daw ñëw weex ko ñu jaaxle trop pour def suñu ay mobilisation journée bi menacé wu pour yàqu mu daal di ñëw taxaw di ko def di ko def di ko def ba mu nekk fukk ak benn moo tax tey ñu war ko fay fukk ak benn daal di koy sax wisaalee benn muy fukk ak benn léegi lii ñu teg bët fii nii moom électorat bu indécis bu Thiès ñi ñu gis ni do leen gis ci ben album politicien ñom ñoo doon tok bëggoon ni jot rek di dal di jël jënd ay carte xool bu leen neex ñu duggal ko fa légui rek loolu lañ bëgg changer aujourd'hui dañu bëgg yëg ni lan moo tax ñu nam and ak Maodo malik ci liggéey bi moy ñepp xam nañ ni président Macky Sall département bi la gañe won waye mosul gañe commune waye inshallah allah ren élection yii nii di ñëw bu sama yàlla dañu bëgg a liggéey de que moom dina yéeg ni commune bi gañe ko te réseau pour la solidarité et le développement dugal na si loxo